salaamaaleykum gars yi avocat Sonko la maa leen nuyu di leen ziar yéen ñaanal jàmm te di ko ñaanal sama bopp gars yi suba 10 heures place jàmmalaay dafa am manifestation bu fay am manifestation bi nag du lenn du dul encourager les action du gouvernement action yi nga xam ne moom le président Diomaye fay jël ci wàllum suuf si pour ñu encourager leen wan leen ne leen foofu ngeen ko teg foofu la bépp sénégalais boo xam ne ni doon jëfandikoo wàllum suuf si niñ doon def ci wàllum suuf si ak ni ci jomaay fay def nii neex na la ak nañ ci doon def neexu la nga bëgg jom ndax fi mu toll nii am na woyu yëpp jóg nañ fi mu toll nii ñu ngi xaxar jomaay pour mu arrêté li mu def yéen a ngi déglu ay Babacar Fall ak Madiambal Diagne ak woyu a ngi wax fi mu toll nii. Sénégalais yi nga xam ne si ay senegale lambda lañ nga xam ne si nii ñoom ñoo soxla littoral bi soxla corniche beeg ñoom seen yooyu. ñu ngi leen di woo ca place de Diamalaye pour ñu encourager gouvernement bi wax leen na leen lii ngeen di def ñun ngeen koy defal lii ngeen di def ñun ñoo leen ko sant lii ngeen di def ànd nañ ci pour ñu gën a teg seen baaraam fi ñu ko teg ñu ngi fay woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp te gaa yi vidéo bi ngeen partagé ko na si ñëpp jot ndax tey affaire bi bi ñu ko jàppee yàggut mais nag kon ñu xamul ñun dégg nga ñu bu ñu jàppee manifestation tey tey tey buñ ko defee day réussir gars yéen ñëpp na ngeen teew incha bu ko kenn manqué yéen ñëpp na ngeen teew. place de jàmmalaay la demain à 10h maanaam dimanche dix h tey la samedi suba ci dix h ngeen partagé vidéo bi gars yi partagé information bi groupe whatsapp yeeg fépp na fi tas gars yi nañ ko yëg nañ dem incha allah.